D'abord, nous sommes de Yalla quand même, pour nous permettre de jouer final. Moi, je pense que de notre équipe qui jouer final, parce que euh, Wakam, Duc, GBA, Villa de Dakar, donc équipe qui ont Machallah, de mobiliser, équipe qui ont là c'est tout Wakam. Donc, comme As nous le président As, euh, Tamet, il faut, il faut que nous nangu que final, final de nous jouer, certes, nous pour gagner kuy gagné kuy yaakaar ne da ngay dem gagné tam war nga préparer tam pour pour perdre donc damay jël exemple Allemagne rek Allemagne bi nga xam ne organisé na euro bi def ci ay milliards mais dañ ko éliminer mais gisoo benn allemand sandi dara ci terrain bi wala manifester terrain stade dafa ko ne fees dafa noonu nii ñoom joué ñu ko sax seen dëkk donc image boobu la parce que ala kundi yàlla basket day kon ne am. gisoo Jeunet Saint-Michel bi ñun jëw ñu ko mais terewul nit ñi ñu ngi ko leen liggéey donc il faut que nit ñi nangu ne basket kenn moomu ko. na ngay liggéey sa morom liggéey na ngay sabablu rek sa moom liggéey yàlla ku mu jox ndam ñu nangu ko. man de mon côté maa ngi ñaan supporters yi parce que jouer ak Wakaam ñun yàgg nañ jouer ak Wakaam final quand même final yu neex la quand parce que final bi na gis Wakaam dañuy mobiliser. di tamit day mobiliser te joueur ak entraîneur loolu rek ngay ñaan jouer benn équipe finale équipe mobiliser nit ñi ñëw parce que nit ki tamit looy def bu ko nit ñi seetaanlee du ci am doo mun jaay sa bopp parce que ñun tamit dañ ci jaay suñu bopp nag bu ñuy naree jaay suñu bopp nag na doon ci lu rafet.

moo ñu gañee te daf ñu gagné avec la manière ñëw gagné douane avec la manière ñëw ba fii gagné yeneen équipe donc équipe bi nga xam ne dafa mérité ñu jox ko cër te jox nañ ko cër bu mët sëkk parce que moo ñu gagné nag ne serait-ce que nu ñu gañee rek jox nañ cër moom mooy favori c'est normal sport noonu ku la ngeen gagné seen confrontation mu gagné la ci moom moo ci favori mais ñun dinañ def képp laay ñuy ñaan yàlla yàlla may ñu nam Ah, Wakaam c'est une très belle équipe équipe bu jeune la équipe bu motivée équipe bi nga xam dañuy ay xale lañ te xale lu muy gëna bëgg moy scorer dugal jouer ils font un très bon basket basket de haute qualité donc euh, pour nga gagner il faut nga défendre bu baax défendre bu baax ba pare équipe bu nga xam ne dañoo jub loxo dañuy sandi bu ñuy sànni nak di raté di jëlaat sa rebond ça va être un problème donc il faut ñu contrôler suñu rebond contrôler suñu défense contrôler suñu rebond bu ñu contrôler suñu rebond ak suñu défense défense bu baax yaakaar naa ne yàlla nañu may ndam daal. am nga match équipe bu la gagné na nga ciy jàngat rek mais doo fi ne ci joyante basket amul revanche man sama conception lañ ma jàngal basket amul revanche parce que loolu du mës a deñ wakaam gagné nañu ren gagné nañu at yee paas du mës a deñ day des donc match yooyu tourné nañ ko tourné nañ ko dañuy jet beneen final mais bu buñ ci nar a xool ñëw esprit esprit esprit revanche doo nekk da ngay ñëw ak benn xool Wakaam ni ñu ñëwee ñu une victoire ñoom tam loolu la ñëw pour une victoire ah ñoom ñëwuñu taxaw nii waaye dañ ne waa ah même même bu ñu gañee garaaw non non non bu dee ñun loolu lañ yaakaar dañuy ñun dañuy nax suñu bopp. donc Wakaam day ñëw pour jouer pour gagner ñun tam pour gagner man sama sama conception li ñu ma jàngal ci sama formation revanche amul nit ku la gagné da lay gagné ku la mën da lay mën daal.